Ya mbokk jullit yi mbokk talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Abo Mbàkke xalifa sëriñ Fàllilu Mbàkke Xaadima Rasool ci turu sëriñ Basiru Mbàkke Fàllilu jëwriñu kër sëriñ Fàllilu Mbàkke ak sëriñ Abdul Fatah Mbàkke Fàllilu mi yor kaddu kër sëriñ Fàllilu njabootuk sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim deuxième xalif général des Mourides ñoo am mbégte di yëgle bésub sëriñ Fàllilu Mbàkke di bésub fàttaliku bésub màggal bésub ñaanal sëriñ Fàllilu Mbàkke treizième xalif général des Mourides muy màggal kasu rajab 2019 talaata ñaari fan ci weeru avril fa Touba kër Serigne Fallou jàkkarloo ak jumaa ji muy bésub yonant bi bésub rañaan gi laylatul isra wal mihraj bésub sant Serigne Touba ñu di ci woo mboolem jullit di ko yëgal mboolem ñu bokkal maam maaram njabootuk Serigne Touba gépp mbàkkeeg bu soobee waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall lam cheikh yu yoonu Mouride mboolem taalibe yi rawatina taalibe yi Serigne Fallou Mbacké di seen buntu ci Serigne Touba mboolem këru mboolem soppey Serigne Fallou yi ci biir réew mi ak ci bitim réew muy màggal kasu rajab bésub Serigne Fallilu Mbàkke Xaadimu Rasuul di bésub sant bésub màggal bésub ñaanal deuxième xalif général des Mourides bésub nangu ñaan ak pajum aajo ci njiital Serigne Abo Mbàkke Fallilu ci kilifteefam ci teewaayu njabootuk Serigne Fallou gépp ci ndigalu Serigne Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général di Mourides talaata lay doon ñaari fan ci weeru avril 2019 ci Touba kër Serigne Fallilu Mbàkke jàkkarloo ak juma ñu ñaan képp mbake Khadimu rasoul ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba cérémonie officielle ñetti fan ci wéru avril buñu magalé ba ci ëlëk sa 10 h ci suba que Serigne Fallilou mbake ibnu Cheikh Khadim fa Touba